What was this for? jërë ngeen jëf mbokku internet seen lamba yi mbégte la waat ak contentement saa su ne bu ñuy jàkkaarloo ci yéen ndax yaakaar naa saa yu ñu wax rek da ngeen di xaar en somme à tout moment ñu leen di moo leen di satisfaire li ñu mel nag laat jëlaat ki nga xamante ni mooy borom niveau ki nga xamante ni mooy borom Dubaay ki nga xamante ni nee naa la saa yu waxee rek Sénégal yëpp dañuy kontaan ngir kàddoom waaye ngir neex bi nga xamante ni da ko neex macha allah muy Bou te tey ñu fekk fi nga xamante ni mooy Géejawaay place Mouhamed Torodo mobile ah ndeysaan macha allah Mouhamed di xale moom tamit eh, ñu ñaan yàlla suñu borom defal ko jàmm ba fu ay moromam toll si li nga xamante si lay yëngu muy jaay téléphone yàlla suñu borom yóbbu ko waaye nag Kalidou bul fàttali nag suñu gaynde yi dañoo lajjë keroog seen diggante ñi nga xamante ñooy Ivoiriens yi ñu leen di encouragé ah nous sommes fiers d'être sénégalaises waaye nous sommes fiers de vous les di leen wax ni nii kese la kuy wut mooy ñàkk te kuy ñàkk ku ne bis day ñëw day am kon ñu ngi leen di félicité di leen encouragé di leen ñaanal jàmm waaye jërëjëf sëñ Fallou Seck borom màggal gi borom Kazu Rajab bi macha allah bu Siteu la Siteu Kazu Rajab dana neex ak sëñ Fallou Seck macha allah sëñ Fallou loolu yëpp tey di nga koy dajal mbokk waxtaan seeg bu Siteu combat Balla Gaye Tapha Tine combat ñaa bu ndaw Zarko et tant d'autres combats ñu suñu kanam mbokk yi tey bu Siteu lañu dajal dañuy waxtaan ak moom waxtaanu làmb waaye lan lay def fi nga xamante ne mooy place Mouhamed borom Torodo mobile looloo jar a laaj bu maa ngi lay nuyu di la ziar lan la wax dox noor waaw ginnaaw bi ma sante yàlla julli si yent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax di bëggee tamit képp kuy fan sa Bou Siteu rek mhm. maa ngi bëggee gaa yëpp di bëggee tamit ku si mel ni euh, ki ma sañse te parce que mais dangaa war a jël sañse bi léegi sama niveau dépassé na fu may defa dee émission ngeen ni bañ a jël li ma sol ndax émission bu ma def bu rafetee rek sañse bi la kon ñi ma sañseel il ngeen di jël sañse bi mais calme-toi waaw ku si mel ni libaas laay Béji. waaw libaas laay Béji moo génn fii. koo xam te ni maanaam lu mu defaru si tére wala lu mu ñawul ci tuba yi mm. tére mm. tuba yu nante tuba yu qualité. mais boo xoolee li ma sol nii rek. nga xam ne fii nii libaas laay Béji moo fi jaar. Mm. jaar ci tisat bi. fu mu toll nii lii nii rek yërëm nii. muy ma bàyyi gàlle. dama ko soloo ko. mais lu tax solu ma ko muy maanaam. bugguma fu ma romb ñii ñi di di di ma yaakaar militaire. te parce que ni ma solo la solu bee bugguma sol bi fës mais kenn du libaas laay bées yi dafa ànd ak jàpp pile boo xam te ne moo moo tuba ñoo ànd waaw libaas laay Beji maa ngi kontaan si yow trop frère di wax ne gis naa sañse beeg yëpp mm. képp ku bëgg si ensemble yi nag mun nga ko contacter quoi libaas laay Beji yal na sa jaamu yàgg frère macha allah ci ñu wax ñu wax si li nga xamante ni moo ñu fi taxatee ñëw muy làmb yu nekk suñu kanam waaye muy lajj bi nga xamante ni Sénégal lajj na ko seen diggante ak éléphant yi mais avant tout lan ngay def place Mouhamed Toro de bloc dem mais place ma daan dem ak place bii ma sa fait diamétralement opposé ndax lan te parce que place ma ñëw place su niveau laa ñëw xam nga man yow yàgg naa la yóbbu si ay bidigu iPhone waaw mais tey xoolal fii ma lay yóbbu lu ma gën a bëgg nag kilim bi yeeg 16 maanaam 16 la kilim bi di maanaam di daw kenn du kenn du Mohamed kilim bu yegg 16 looy yëg borom tooroo de mobile mais kilim bu yegg 16 looy lu may yëg rek muy maanaam valeureux damay yëg valeur yëg loo xamante ne nii ça fait diamétralement opposé maanaam yëgaale niveau. niveau yëgaale niveau. jeunesse bi. Mhm. maanaam amaa la contente ci jeunesse bi. jeunesse bi amoo loo leen wax parce que nga war fii dem Dubaay bàyyi. ah nan laa waree jeunesse bi. mais ba leen wax yooyu. leen war man jeunesse bi rek laay topp ku toppul jeunesse bi nga pousse. mais lan moo tax téléphone yi bi réer boobu ak léegi nangu woo dem récupérer pièce bi non maanaam xam nga xam nga pièce boo koy retiré day day fekk nga nga nga nga kiiwee nga identifier ko sa quarantaine est-ce que xam nga ne pièce bi tey tey tey naa jot si pièce bi laaj ma ka kam mooy waral loolu. kan mooy waral loolu. ku si mel ni Toroda mooy mooy retiré maanaam fii boo sa pièce orange sax bu réeré da ngay ñëw fii retiré sa pièce. Western Union bu ñu la ko envoyé fii ngay ñëw retiré Western Union. Wave Orange Money lépp tout. di jaay ay téléphone qualité ay téléphone yoo xam ay téléphone niveau mm-hmm. yuy jógee Amérique mm-hmm. yow gis nga téléphone yi ay mm-hmm. nouveau maanaam arrivage bu bees bee wàcc arrivage su niveau mais kenn du tooroo de mobile Mouhamed kon yaakaar naa tey taay fekk Dubaay naa taay moo nekk si ginnaaw de moo nekk sama ginnaaw maanaam guddi yi si ay loxo yu wóor laa nekk guddi yi maa ngi ci ay loxo yu wóor si loxo tooroo de mobile Mouhamed noo def xam ko moom Mouhamed mais nu ma def ba xam ko muy maanaam gis nga xamel ndaka da xamel sax ba si air bi ci air bi lañ xamante ma moom. si lan ci air bi. Eh, bu bu wallaahi ci kaw jaww ji avion bi di mbëkk nees yi ñu xamante ci ah, si loolu. xoolal li ma la wax la maanaam suñu xamante maam moom ci mbëkk neege la mu nekk na ku yàgg suivre bu Siteu maanaam yàgg maa topp mm-hmm. jour bi njëkkee gisante si avion ba ma wanee téléphone damaa tiit sama vidéo yi bu oh. rek lay topp maanaam soxlawul keneen di di nekk si téléphone am ku dul bu Siteu rek mu nekk ndeysaan ku baax Mouhamed ndeysaan mm. ñu xamante si avion bi mm. yàlla def nag mm. tombeek ñu escale Guinée te parce que jour boobu sama eh, sa maa maan ñëw suufeel sama niveau yow xoolal fi sama niveau toll bañ bañ nga bañ ma yéeg avion ñu jugee Dubaï. waaw. ma yaakaar ne sax avion bi wàcc bi muy wàcc. egg nañ. ndakate Guinée lañ def escale. loolu nanul Guinée. may waaye laal Mouhamed sama niveau suufee mais nag di wax ne président Guinée bi defaral Guinée. te parce si aéroport Guinée comme cité Barak. aéroport Guinée comme cité Barak maanaam man musuma gis. dëkk bu am dëkk boo xam te ne aéroport bi comme cité maanaam président Guinée waaye waaye dimbalil waa Guinée waaye nga defar seen aéroport bi. bu yaa ngi tooñ de. tooñu ma te damaa am ay fans yoo xam ne ay guinéen lañ. kon kon pourquoi ñu mën a defar aéroport Guinée non li am ay ay problème après. du ma si am dara que maa fi nekkal Guinée yi si Sénégal fii maa fi nekkal Guinée yi yor seen porte de voix Guinée yi si jeunesse bi lañ bokk mais pourquoi man waruma kaasal waa Guinée seen aéroport boobu di mel ni cité Barak. di di interpellé euh, nu mu tudd président Guinée bi. Mohamed Toro. mu xam non tudd Mohamed maanaam Mohamed Toro da maa ngi ci bitigam maa ngi ci bitigam fekk fi nag sama mafia yu am doole waa fiñ bi waa fiñ bi ma Baye Fall yi ñoom Kara Cuuraay ma ñëw tey gars yëpp di ma bégee loolu moo leen Bou Siteu maanaam international déggal planétaire la sama niveau sax dépassé na international. mais mais Eche macha allah Eche keroog ñu lajjee suñu diggante ak éléphant yi macha gis marché bi ni mu déroulé. non éléphant yi bul wax éléphant yi. waa éléphant yi. ñan ñooy éléphant yi. waa Côte d'Ivoire. non bul wax éléphant pour man sax équipe nationale nga bëgg a tuddee sama kii ay. déedéet équipe nationale ay gaynde la ñuy mës doon. ay gaynde la ñuy a doon. waaw mais noo gisee match boobu critique yi bëree na après match bi noo gisee match noo ko jàngatee en tant que sénégalais. waaw match bi nu ma ko jàngatee rek muy maanaam am lu ma metti muy lan am lu ma metti maanaam am lu ma metti loo xam te ne mënu ma ko sax wax. non waxal bu fi da nga. wallaahi damaa am lu ma metti si match bi. lan moo la metti. mais li ma metti muy Aliou Cissé. xam nga fan sax defoon naa fi sorti avant marché bi. Mhm. di dal ci Aliou Cissé di wax Paka Boy. mooy Paka Boy mooy Maxet. Maxet waaw international. Mhm. est-ce que xam nga ne Maxet maa doon génn sax naan Aliou Cissé dafa war a woo Paka Boy. Mhm. am na ñu bëri sax ñu ngi koy seetaan yaakaar ne Paka Boy moo ma moo ma yónnee pour ma wax loolu. te kooku daf ma recevoir woon kë foo fee rek Dubaï. dafa man teraanga yu doy waar Paka maanaam moom day defar diplôme instant mu ngi ci diplôme. pour affaire entraîneur. Paka Boy instant yooyu la nekk nii diplôme pour mm. affaire entraîneur quoi mm. mu nekk koo xam ne dafa fubal ba upp ba upp ba upp kii daal ba upp fubal ba upp fubal am ay centaine de bii macha allah waxo si marché bi kon lenn rek laay wax muy muy muy jeunesse bi nag ñoo ma yónni Aline Cissé jeunesse bi ma yónni mm-hmm. nee nañ nga démissionné te man loolu laa gis ëpp naa def na démissionné mais boo bu ma nee démissionné danga may laaj kan lañ fi war a tegaat kan lañ fi teg kon mais ku si mel ne Daouda Mbow international koo xam te ni ancien joueur u Marseille la Daouda Mbow li may wax waa Almadi xam nañ li may wax bu baax ak waa Ngor est-ce que kenn yónni wala bu waaye do ba bàyyi ay yónni waay ah damay laaj ci mais danga may laajaat keneen ak kenn waat mais loolu nga ma war a laaj ak ku ci mel ne Paco Boy i Paco Boy yi mu ngi def diplôme entraîneur yow dafa jot. Eh. Sénégalais dafa jot Aliou Cissé nga pousse. mais yow xam nga yaa ngi may ñu. te parce que mais nag gis nga am na leen loo xam te tamit kenn du ko ñeet. waaw mais mais Aliou Cissé dëgg la indil nga ñu Coupe d'Afrique. Hmm. amul loo ñu defalul. mais Aliou Cissé gàcce nga mais yenn saa yi da ngay da ngay juum. mais gàcce nga la moom toog na six mois. kenn fayu ko Bamba Bamba Bamba booy bu gaaw gën ndaamali. Bamba Dieng. Bamba Dieng waaw. mais Bamba Dieng dafa waroon na kii dañ ko waroon na teel a dugal moom mu moom mu maanaam mu gée match bi yëpp mais booy boobu fitt la Sadio Mané doxul te ñëpp xam nañu ne Sadio Mané doxul Sadio Mané dañ ko waroon a génnee ba temps bi dawee Sadio Mané dafa waroon a génn football wax nag li may wax jeunesse xam nañ lu ma man damaa xam football Sadio Mané di minutes yi boobu dañ ko waroon a génnee maanaam buy complexe man góob ma entraîneur buy complexe. da nga jàpp ne complexe la. mais Sadio Mané 10 minutes dafa waroon a génn pousse abal ñu. mais arbitre bi gars ñu blâmer arbitre bi lu jig njàkk arbitre bi mooy njàkk. waaye lu jig njàkk arbitre bi mooy njàkk est-ce que xam nga ne arbitre bi ba ba ba match bi desee 3 jours. waaw mook entraîneur Côte d'Ivoire bi. ñoo bokk fu ñu doon aññe ñoo bokk fu ñu doon lekkee ay tacos. ay yow. waaye ma nga naan ma ay nii. mais mais wala da may déglu ñun nan la ñuy mënee un zéro. waaw ñuy dawal tuuti. kooku def fët. Hmm. nga léegi yow imagine toi jour Côte d'Ivoire bi def fët. def fët boo xam ne fët bu leer nañu la ndax bëgg ay penalty hmm. est-ce nga ne bu dul woon penalty bi saa yi rey nañ ko. Hmm. mais penalty amu fa yow yow nit a ngi def fët nga woo ko. arbitre bi woo ko jox ko zone ne ko na fët nga def. da parce que da ngaa bëggoon maanaam dafa dafa. dafa dafa zibilé. similé similé waaw. mais mu simile arbitre bi ñëw jox ko carton wan ko ni bu baal sa fëdi yi ngay def fii dara amu fi nga jékki jékki mais tamit ah, mais tamit ñii ñii ñu ma naw lañ muy muy kii entraîneur Côte d'Ivoire yi mm-hmm. mais ñoom ay ay ay ñoom ñoom ay ay nante lañ de ñëw yëngal mm-hmm. ne arbitre bi demal vaar nga xoole affaire bi yow yëngal mm-hmm. loolu tax arbitre bi dem vaar mais pour pourquoi ñun ñun ñun ñi nga xam te ne ñun ñoom ñooy suñuy entraîneur mais pour pourquoi ñu yoole foofu di yëngal mais dem foofu di di di def yëfu tàppet El Hadj Diouf moom maa ngi koy sant bu baax ndax si kaw la nekk di di di yëngal di yuut di yuut waaw El Hadj gis naa ko mu jóg di yëngal di yuutaale xam nga li ma la ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne Lat joob tamit mere naa Lat joob bu ko mere mere naa Lat Diop Lat Diop musoo gis ma def émission ne la mere mais dama laa mere ndax lan parce que xoolal mais yow xoolal fii ay see yi fi ne xoolal ñii nii nekk ay supporters yoo ñu maanaam ñu yàgg a sonal Sénégal. mais yóbbu nañu ay supporters ngay jël di yóbbu ay mbër yoo xam te nekk fa di lëmbal um ñu. Albouri man Albouri lëmbalee rek. laa ne dañuy ñibbi. mais yow imagine toi huitième. huitième huitième de finale huitième de finale nga ñibbi si. loolu defet la si Sénégal. yaa ngi toj dafa waxul. waaye Albouri moo ñu um ak yeneen influenceurs yu yu yu xeeñ yu yóbbu foofu. lu nekkoon foofu nag nekk fa di lëmbal nekk fa di lëmbal di cakaay yi fa xew yëpp xam naa yëpp cakaay ñoo xam te xamuñu si sa sa doomu ndey sax xamul ci euh, fu ñu demee ba ne eh, lambolog jàmbur fu ñu demee ba ne lambolog mais lambolog lan la xam ci footballu log fan nga déggee lambolog footballu log am na kay mais footballu log amul lambolog ngay attaqué lambolog si lamb la war a yem warul warul war te parce que man sax sama niveau sax moo dépassé ay ay ay Côte lamb la ngay attaqué sama niveau dépassé na moo tax Lat Diop ba ma wooyee naan ma dañ ma bëgg a sélectionné la sama père nag sama niveau dépassé na Côte d'Ivoire te parce que mënu ma jugee Dubaï nga naan da may yóbbuwaat Côte d'Ivoire di suufeel sama niveau. mais waxuma loolu lamb la nga attaqué lamb la. non du attaqué sax maanaam lamb la lamb la xam aka xam lamb mais lamb la xamul ci football dara mais sport la ñu wax. mais boo yóbbu dangay ngay yóbbu ay yi mais yow booy ay yi nekk fii di yëngal ngay tànn ñi ngay yóbbu di fa yóbbu ay tapet comme mais tapet yi ay am na ay am na si ay mbër yoo xam sax ay tapet lañ. dañ leen a yóbbu. te waruñu woon yóbbu ñooñu. yéen mbër la ku si mel ne Albouri premièrement. yow mënoo bay Albouri. lëmbal fa ba ba um ñu. ak keneen ku fa nekkoon borom caay bi. bugguma sax tudd turam tudd. bugguma tudd seen tur sama niveau moo leen dépassé. sama niveau moo dépassé yooyu mais directeur Lat Diop ministre des sports nga te tooñ nga gars yi. macha allah ma laa attaque man fii nekkuma fi ay dër bu Siteu bu Lat Diop de ku fi def na ko dul noonu ma safay jamartarama opposé waaw. bu sa yaram tàng rek sama yaram dafa tàng. mais calme toi maanaam Lat Diop na bàyyi di tànn ñi muy yóbbu na yóbbu gars yi. simil affaire bi mais boo duggee ay say jubóo asiko yi zëngalee. waaw mais ay boo yu mën a supporter ñoo fa nekk ngay jël ay influenceurs yoo xam ay tapet lañ. influenceurs yoo xam ne ni dañuy maanaam dañuy ubbi benn compte naan compte bu Siteu ba seen compte bëri. ñu ñu war Bou Siteu monter seen contre nga nga léegi yow ñooñu lan lañ def si internet. mais calme duñ ay influenceur mais calme toi simil ma tàng duñu simil mooy loolu instant yi maanaam dañoo bëgg a tàngal sama yaxu yaram yi bu buñ ma merloo nag waaw instant yi Sénégal dañoo war a jox Sénégal seen gëdd jox ay see yi ay see zëngale mais yii boo amatee nañuy yóbbu zëngale mais di di xool ay influenceurs yoo xam te nii xamuñu tus si si ay affaire u match macha allah am na solo macha allah loolu lañ ko ubbi woon ànd ñi fa yóbbu tamit seen gélé am na ñoo xam ne dañ da maanaam dañ leen a kii ñu ne ñoom dañuy yóbbaale seen gélé gel lan lay def si fuy foo xam ne dañoo war a ñaan war a indi coupe bi mais bu la xamee loolu maanaam ko képp ku dem. ne ne ne ne ne la job yóbbaale sama gel bi. la job yóbbu leen yu yomb yooyu. la job amul complexe man fii maa fi nekkal jeunesse bi kon complexe yi dafa war a deñ ñi nga yóbbu ñëpp gis naa ñi nga yóbbaale seen gel yi gel yi lan la ñuy def foofu mais gel yi du ñooñu um mais li ñuy def seen hôtel yi doo ko xam te yow xam nga ni Côte d'Ivoire ku nekk sa hôtel lañu lay jox hôtel yoo xam ay bokk bokkaloo góor jigéen mais bu ko nekk sa néeg ku nekk ak sa néeg di caqaay waaye sa fay jamartarement opposé waaye ak coupe bi moo tax moo tax sax aka baax sax huitième bi ñu ñibbisee sax baax na ndax ay uma rek la ñu yóbbu ay uma lañ yóbbu mais tey Boucher dafa tàng. dafa tàng moo tax nag li koy faj nag mooy Aliou Cissé démissionnel démissionnel nga puus may Daouda Mbow mu ñëw wala nga puus may maxat mu ñëw waram tëngeej parce que booy. macha allah koo xam ne mu ngi si diplôme. entraîneur. am na solo ñu ñëw si combat bi macha allah combat bi nga xamante ni. mbokk yi la 4 février la war xew foofu sa arène nationale diggante ñaabu ndaw ak nga xamante ni mooy Zarko mu nar a ne combat bi nga xamante ni xale la bu nekk si yoon di wut. ak mag bi nga xamante ne nen nu mag la waaye dafa def retour bu explosif moom Zarko ñëw teg la 4 victoires défilées wala 3 victoires défilées daan mbéyu guy gi daan Baye Mandione daan Ada Fass daan ki nga xamante ni mooy Diène Kairé macha allah tey mu ñëw am ki nga xam ne mooy ñaabu ndaw ñaabu ndaw nag mbokk yi ku nekk xam ne ni si bursin la jógee bëre moom bëre boobu bi nga xamante ni macha allah axlu làmba ñu bëri xaar ñu ko foon mu ñëw imposé ko force am jàpp bursin dan ko jële bu rëy ñu boole ñu gis la 4 waaye nag bisu la kaat mbokk yi bu leen fàtte ni classe bu am solo am na fa ndax boo nee caatu yoof ñu boole kaat ki nga xam mooy njaay tiin ñu jël ki nga xamante ni mbokk yi mooy njaga doole boole kaat ki nga xamante ni